tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub Mira, déjale, dale.

kii sama frère nga lan. man la ma dama nekkoon téléphone bu yàgg waaye ça va. nga ne yow Ndeye. dama lay soxla dama lay aw. dara du boole man waaye salaamaaleykum. Sylla grand frère. Sylla ma respect naka ngeen def. naka naka Gambian people. everything is okay. comme ni nga ko waxee mbokk na ngeen def. c'est yéen a ngi dégg cool ah. jaajëf maa ngi nii jaajëf waay jaajëf daal ça va bien. ah wasaab ah kii de sama famille bi la ah ah maa ngi leen di siyaare waay. maa kenn tawatul. maa ngi leen di ci jaamu jaajëf waay maa ngi leen di siyaare. eh Oga. sama boss bi na nga def. yaa booy. how you doing yaa ngi ci jaamu. ça va bien. maa ngi leen di ci jaamu ah ah. salaamaaleykum. respect patron. oui. respect gars yi. salaamaaleykum. waaw ah, ah, yéen a ngi ci jaamale. eh Oubac. yéen a ngi cool. bu ngeen béyee ba mu toll. ah yéen a ngi ci jaamale. Sow ay doon jaabi ay doon ay doon. yaa ngi cool. naka affaire yi. yaa ça va. yaa ngi cool. naka nga def. yaa ngi fay. ah naka ngeen def. compagnon. ah ah ma ma ma jaay ma bañ. waaw waaw ma. maa ngi maa ngi. ana umpaañ umpaañ. ana umpaañ. umpaañ yaa ngi ci jàmm. ah. waaw naka fii nag jaajëf waay ça va ça va ça va ça va ñëpp si jàmm ñëpp si jàmm mais mais mais ça va mbaa defal nga ma rajo bi bu ñuul bi. it's okay. Ah, non. Ramdan famille Sénégal bi. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Hein? Sama taw ma. Ah, monsieur Toubaï. Vive la voix. Aji. Aji bo. Aji bo. Aji, aji kontaan nga tey. Aji kontaan nga tey. Yaa ngi tere. Hmm.

Lamp Fall téléphone. télécom <laughs> télécom Lamp Fall télécom. Eh? aca nag dama koy avocat Espagne. danga ko may danga ko may mu noppalu ah. waaw. <laughs> You're looking so cute. Okay. balaa maa ngi waaw boobu moo dem ba mu mën ba mu mën di jël jëmm damay dalu tey waaw am na ñu def ñaari suñu kilifa ak programme ah, waaw waaw am na ñu def programme ah, balaa muy foog la ñu waaw oui oui oui c'est bon. waaw nataal leen nataal leen nataal leen vidéo la bii de mu yëg noppalu na. Hey, Mom. Love is Sahara. You love rafet na sama maama gaañ bi damaa demoon tey dëj. masa coono masa masa masa benn masa masa mais gerte bi nga taal. vidéo bi nag. maa ngi lay jaar. loolu waa ji bu soobee bu soobee mu demee ko. non maam et problème bi problème bi gëstu ñun dañ kontaan si yow ñun parce que ñun yow yaay suñu live yow ñun suñu la gisee rek dañuy arrêté na bu yàgg waaw eh, jël naa la naay jël naa la kaay photo photo I love you so much. Ilma photo mo ka. Wala Gambia man naka la ram. I love you too. Video mo ka. You you my brother. I love you. Photo photo. Kolo yu na mi. Bilay wala tala. Xam naa ma jël la. Ah capitaine Sall maa ngi lay xaare. Bu yaay. Mais doom day mais gaf mais gaf borom Paris nice mooy yëngal ci suuf rek mais dam day waaw gis nga waaw mais noonu la wooykat bee ko jar nice saw yëre yëre daal yi ah. maa fa njaay loo bëggoon waaw ab ñu def ko balaa ba suba

non non non non jox ko si biir da koo jàpp. jox ko ko. jox ko ko. mais mais Paco. waaw waaw bàyyi li ba bàyyi li ba bàyyi ziar àdduna dëkk. waaw monde entier. waaw kii daf maa defar loo xam ne ci àdduna barki Cheikhul Khadim mënu ma koo wax. dama doon ambulant xaw ma xaw ma ko. <laughs> dox ba ci moom ne ko.

waaw Bakale. joyeux anniversaire à Mame Diarra Gueye jërëjëf. li daal sama jaara wusu. wala ma jaara.